doon wax léegi donc dañuy jokkook ay ndaw yi nga xamante ne bi nag ñoo nekk ñoom tam ca baax ñi c'est vrai que situation bi ñu nekk di dund ca baax ñi métti na euh, tiis wi asalaamaaleykum euh, maa ngi lay nuyu di la siyaar maaleykum salaam euh, li may njëkkee ak yow mooy di la masawu coono en plus di la jaale vraiment sa ay mbokk yi nga xamante ne bi ñàkk nga leen ci baax ñi googu nga dëkk masa ah, wàll ñoo ko bokk. waaw di ñaan suñu borom yërëm leen xaare leen àjjana mais. dama bëgg juste nga nga confirmer ma comme quoi que fi mu nekk nii bari ñi wax dëgg yàlla non seulement ñu ngi ci dëy mais xale yi tey la ñu mhm. gën a engagé wu tey la ñu gën a déterminé wu quand même. Mhm. pour dem euh, ci géej gi parce que léegi dégg naa jigéen ñi sax ñoo ëpp ñuy dem ci gaal bi foofu ci bari ñi. wax nga dëgg de bari de instant bii. am na ay dëcc yu ne yu bëri ndeysaan mhm. mais jusqu'à présent xale yi ñu ngi gën a engagé wu di gën di dem mhm. li gën a doy waar ci mbir mooy war nañ ba sonn lu ne def nañ ko mhm. te en plus aussi am na ay xale yu ndaw yoo xam ne aussi dañ leen di yóbbaale li ci gën a metti li ci gën a doy waar xanaa xale yi duñ fay parce que bu njëkk boo daan dem euh, ci gaal yi ay cinq cent mille ngay fay trois cent mille wala léegi fay amatul fii fay am na mag ñi dañuy paas ay trois cent trois cent cinquante ba cinq cent mais koy dem aussi am nga droit yóbbaale xale. ah am nga droit yóbbaale sa xale. am nga droit yóbbaale xale benn wala ñaar. d'accord. donc donc mhm. dafa am ay famille yoo xam ne bi ñuy dem kanam dañoo yóbbaale woon seen doom. yéen a am peu gars yi am peu yi ñoo xam ne dañuy dem di yóbbaale seeni doom. d'accord mais li graaw ci euh, mbir mi parce que yow mii may waxal sax dégg naa itam euh, doon nga waaj a euh, dem li ma bëgg a xam mooy uh-huh. procédure bi boo dee dem boo dee dem naka lay dem da ngay dem wax ak capitaine bi da ngay dem uh-huh. déjà lu ñuy laamisoo la ci suuf wala naka lay uh-huh. demee procédure bi pour dem wax nga dëgg dafa nekk loo xam ne dañ koy laamisoo ci suuf boo bëggee dem da ngay dem seeti capitaine yi waxtaan ak ñoom boo hmm. yoree nga paas boo yorul aussi mën nañ la may place nga dem mën nañ la may place danañ la may nga dem. donc yow mi may waxal pare woon nga pour dem quand même mais mu jóo bien sûr que pare woon naa pour dem. lan moo tax damaa dem ba ci biir ñu ne géej bi instant bi dafa yëngu en plus ak ngelaw bi du neex dem moo tax ma yebbuwaat. kan moo la wax loolu bi moo la ko wax wala. sama frère moo ne foofu mu ne ma bu fekkente ne da ngaa paasoon pour dem delluwaatal nga jël taxaar na instant bi temps bi neexul en plus dafa am ngelaw bu bëri loolu moo tax ma yebbi. sa frère bu nekk Espagne moo la ko wax. waaw. donc ana gaal googu gaal gi nga naroon a dugg yow. gaal googu dugg na Espagne yegg na. gaal boobu moom egg na. yegg na mais amoon nañ ay quelques difficultés rek xam nga ngelaw bi moom di ko voyager surtout des fois guddi gi doo comprendre day a métti. d' accord mais alhamdulilah sant yàlla yegg nañ ci mais est xam nga xale yu jigéen yoo xamante ne bii quand même ñu dem nañu ba egg ñu ngi Espagne. yana am pa gaay déggoo xanaa yana am pa gaay sama koñ xam na ala yu jigéen yu bari mm. ba du sama koñ aussi bari ñu si bëri dem nañ te amuñu benn dem nañu ba egg d'accord dem nañ ba egg am na aussi ñu dem yóbbaale seen ay xale te tam xale yi dem nañu ba egg xale yi amuñu benn problème xale yi yi dem yëpp benn amu si problème à part gaal bi mujjee def amoon ay dese yu xaw a bëri rek mais yi dem yëpp xale yi am ñu si benn problème dem nañ ci jàmm yegg si jàmm xale yi sax ñoo gën a nekk en sécurité ka mag ñi. d'accord kon daal gaal yi mhm. mujjee dem rek moo tax vraiment ñuy wax mais ban nit ñi doon nañ dem di yóbbaale xale yi ci jàmm ñu yegg ci jàmm. bànni kañ ab ah, avant gàmmu màggal Touba ba léegi dem nañ ci jàmm problème mosu see am à part bii daal la problème di doog am mais problème mosu am dem nañ ci jàmm yegg si jàmm ñu woote ñëpp xam na ñu si jàmm. problème ma ci am à part nii kese xëy na nag la yàlla dogal. dëgg la parce que bii moom dëgg naa wax dëgg yàlla am na ci ay xale yoo xamante ne bi sax dañoo mhm. wadd parce que maa ngi ciy jokkoo ak benn femme boo xam ne nee doomam moo wadd ci ndox mi. Mhm. loolu dëgg la. waaw c'est vrai complication yi comme li nga wax ngelaw li moo tàmbali woon am metti lool lool lool lool lool. Mhm. li ma bëgg a xam mooy fi mu nekk nii ñenn ñi nga xamante ne bi jotaguñu seen ay néew dañu leen di dëjël wala ñu ngi toog di xaar néew yi ba léegi. am na yoo xam ne moom ñu ngi toog di xaar parce que boo waxee ñu ne ñoom gëmuñu na dee na ñenn ñi aussi gis nañ seeni corps dajal leen ñeneen ñi aussi amaguñu ci confirmation yu leer moo tax ñu toog di xaar. moo tax ñu toog di xaar voilà. Ah. alors li ma bëgg a terminer yow rek je pense foofu la ñuy tàggatoo sax mooy. Euh, mhm. actuellement nii xale yi tey la ñu gën a déterminer bon ku mel ni yow déjà. Mhm. yow euh, pare nga ba léegi pour dem wala d'après li nga gis tiital na la quand même ba yebbi nga. waa li ma gis moom tiital na ma vraiment tiital na ma parce que en tant que en tant que jullit en tan que nit. Mhm. bu dee dem bi auparavant neexoon na ba jafa nekk di woote naan nañ ñëw nañ ñëw mais bu ñu demee ba ci biir. Mhm. temps bi neexul mu ànd ak ngelaw bu bëri buñ ne nañ toog dañoo war a toog mais gars yi dañuy forcer des fois ñu récupérer passe ba pare dootuñu ko mën a delloo xëy na loolu moo tax gars yi di forcer di dem mais ñoom leer nañ ne yoon bi dafa metti en plus ngelaw bi dafa xaw a bëri tellement que ni dañoo war a noppalu man moom damaa part personnel delloo naa lépp. d'accord waaw delloowaat naa ba peut-être que déwén incha allah dem am na ñu engagé wu mais instant bii moom dañuy jël lépp teg ko si teg si suuf. jërëjëf ñu ngi lay bu baax a baax a baax. merci beaucoup. aali <laughs> rasul gis nga. <laughs> moom delloowul yota. <laughs> delloowul day xaar géej gi daal day xaar géej gi daal day xaar géej gi daal rek donc man lii daf ma sax daf ma daf ma sax jaaxal. voilà ñu ngi dellu man benn problème rek laa ci am. Mhm. muy le fait que li mu wax. Mhm. muy que ni nit ñi am na ci ñoo xam dañuy dugg. yóbbaale seen benn benn xale wala ñaari xale. Mhm. mais est-ce que loolu mënut a créer surnombre ci gaal. parce que gaal goo xamante ni dafa war a jël par exemple deux cent personnes. Mhm. bu ku nekk indi deux personnes. Mhm. dafay nekk six cent personnes. wallaahi imagine <laughs> bu nekk nekk indee euh, euh, benn nit dafay nekk quatre cent personnes. Mhm. est-ce que loolu du indi mooy indi mooy causer. par exemple li nga xaman ne yi am ci biir géej parce que aussi euh, man munuma comprendre loolu. parce que loolu moom ala ala kuleyaalin moom surnombre day am moom. Ah surnombre gaal gu mu am mën na chavirer. mën na këpp mën na mën na def leneen donc man li may wax encore une fois mooy gis nga Bamba. Mhm. dama lay wax benn affaire immigration yàgg na ci àdduna depuis des siècles nit ñi ngi immigré. Mhm. te ay bateau lañ daan immigré euh, nit ñi ñi ngi jël bon différentes voies di walla différents chemins yoo xam ne ñi ngi koy jël di dem ci di immigré mais pour man géej c'est pas la solution. li tax géej c'est la solution mooy géej amul banqaas mhm. imaginez un gamin boo xamante ni par exemple mënalul boppam dara mhm. nga dugal ko ci gaal bu gaal googu tojee tey jii ku koy dimbali est-ce que ku ko yóbbaale woon ci gaal gi dana ko tal mhm. boppam lay tal donc daf ci bëri yoo xamante nii nit ñi dañ ci war a conscient moytu ko euh, ba ba ba ba jéey du am parce que pour man mun c'est pas la solution immigration clandestine parce que nag damay wax benn affaire maa ngi ko ciy waxtaan euh, démb man leen le phénomène Nicaragua. Mm-hmm. mais américain yi mais tey jii man damay wax ni ñoom ñoo bëgg nit ñi dugg seen dëkk parce que les américains s'ils voulaient pas nit ñi dugg aux États-Unis non tëj nañ États-Unis mm-hmm. bis bu ñu yeggee ci ñu war ko euh, tëj dañ koy tëj mm-hmm. donc Europe aussi noonu la mel bon dañu jël loo xamante ni dañu teg seeni euh, normes ne fii ngay jaar fii ngay jaar te loolu aussi man ma d'accord ci ak ñoom li tax ma d'accord ci ak ñoom mooy mhm. gis nga ba Sénégal gi régime bi bi muy ñëw wax naa ko fi un jour ma ni leen dañu tegoon ay visa yoo xam ne cinquante quatre euros moo koy euh, ngay fay pour à l'époque Youssou Ndour moo nekkoon le ministre du tourisme donc euh, li may wax rek mooy tout pays boo xamante ni mi ngi ci àdduna da ngay teg say norme ne nii la ñuy duggee ci dëkk bi li tax mooy bu fekkee da ngay accueillir une personne dafa war a am un casier judiciaire boo xam ne dafa vierge. Mhm. mu leer leen ki ngay accueillir sa dëkk deful ñaaw ñaawteef ci dëkkam nga war ko mën a accueillir loolu muy procédure boo xam ne nit daf yo gaa parce que pour man Sénégal ba ci Sénégal gi même bu ñu imposé woon visa mhm. norme yooyu war nit ki dugg si war na koo respecter jaar ci loi bi nga xam voie bi nga xamante mooy voie normal mooy voie légal bi nga xamante ci la war a mën a jaar pour tukki parce que aussi nag dama lay wax benn affaire tukki taxul nit tekki. Mm-hmm. gis nga damay wax euh, man dafa am benn wax boo xam ne dama koy wax à chaque fois damay wax ni yàlla ji nekk Manhattan. Mm-hmm. yàlla ji nekk New York. nekk Madrid nekk Paris nekk Berlin moo nekk au fin fond du Sénégal. Mm-hmm.